weeru xar baax waa ngi nii egsi na weeru julleeg woor sàkk sarax teru na weeru xar baax waa ngi nii egsi na weeru julleek woor sàkk sarax teru na weeru julleek woor sàkk sarax teru na weer wi teru na sunu weer teru na baalu war na baalu na leen baalu na jot na baal ma àq baalu na baal naa leen baalu na xar baax waa ngi nii egsi na weeru julleeg woor sàkk sarax teru na weeru xar baax waa ngi nii egsi na weeru julleek woor sàkk sarax teru na weeru julleek woor sàkk sarax teru na weer wi teru na sunu weer teru na baalu war na baalu na leen baalu na baalu jot na baalu na baal ma àq baal naa leen baalu na sëñ Iran yow it ñu lay gërëm gis li ngay représenté tey émission bi fi ñëw mu ngi tudd ndogul jàmbaari ndogul jàmbaari nag ku ci am Iran am nga jàmbaar laa allaama maa ngi lay nuyu di la ziar ustaas maa ngi lay fay waaw neel Boubacar Diallo muxtafina dama la fa daan fekk rek ca euh, mbir ya waaye bokkuma sax na waaye nag ñun ñëpp ñoo bokk naan waaye léegi nga ñu ne diine ji moom moo am solo wallaay li ci des yëpp ci biir diine ji la ñu lay gërëm di la sant di la ndokkeel disponibilité bi aussi ñu la ciy gërëm yombul puisque def ay émission yu dul jeex ba pare toogaat xaar ñu lay posé waat ay question lii dafay wone ne li ngay wax lu dëggu ci yow la kon ah ñu la koy seedal te wama shahidna illa bi ma alim naa loolu rek la ñu def kon li ci des nag mooy dañ la bëggoon a laaj dépravation des mœurs muy jikko yi yàqu yi tey hmm. fii ci réew mi hmm. foo wax mu ne jikko yi yàqu na te bu ko dee wax day jàpp ni moom jikkoom yàquwul man mi koy wax naan jikko yi dañ yàqu du ma sax xool sama bopp dama naan jikko yàqu rek léegi nag yow lan mooy sabab jikko yàqu yi waaye tamit lan mooy responsabilité yi waaye lan mooy solution solutionné fii Sénégal toll ci jikko yàqu nag ma naan lu yàlla ak yonent bi wax mhm. waaw yow moom lu la laaj ak fa nga koy delloo ah, macha allah nga may wax mhm. Oustaz Boubacar yàlla mhm. Boubacar Oustaz Boubacar <laughs> <laughs> waaw ma jël comme yaa ko wax. xam nga boo demee ci alquran. wal baladu tayibu ak al baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi yu ma mojj baaba mojj bi ngeel bonataa mooy aaye bi Abubakar Diallo mu yiw ñu may ko didi mu yiw du ngeen ci jur ludul moodu mu yiw abubakar Diallo mi tak ka ko neex ndaw ci sey ak moom ci la ko neex ñu jur dom ju len neexul ma dem ca nahjul qadim bu qadim rasul man faala ma shaa mhm. laqiya ma saa ñaar la de shaa da nga nan saa nga ne. Mhm. seen nga waaw du benn. Mhm. <laughs> dañoo jàngale kenn du benn. man faala maa shaa laqiya maa saa xaadim nee na mhm. ku takk kala neex jur ku la neexul jikko la takk jikko la takk والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي jigéen ju sell góor gu sell doom ju sell mhm. maam Mor Anta Sali maam Jaara Buso maam Xaadimu Rasul loo ca man maam jaara ak naafile maam jaara ak waañ wa maam jaara ak soq ba maam jaara ak walga maam jaara ak rooti ga maam jaara ak jàngale ga maam jaara ak naafile ga fanweeri at ak ñett la jaara bu saam jural ñu xaadima rasul ñaata million gëm xaadima rasul ti suñu koo teg bët liggéeyu jaara jigéen ñi ne ko wax muy la dimbali ñu loolu yees na moo tax ñu jur ku xew am de mm-hmm. ku dàq lu wees mm-hmm. jur lu xew ñu jur gainsman yi sàcc maan yi fen maan yi tappale maan yi trian maan yi eh? mënoo ci dara moo tax gis nga bu alquran di wax ne nisaakum xarsul lakum faatu xarsakum anna shiitu dama lay laaj oustaz Boubacar mhm. soo amoon sa jiwu tey mhm. moo xam xaal la mhm. moo xam màngo juy ji la moo xam gerte la bu dee man mi dëkk Saalum wala suuna man mi dëkk Saalum wala bësi man mi dëkk Saalum wala saañu man mi dëkk Saalum soo koo demee ba koo ji da koy uta suufam am de fekk suuf rek ay xeer nga ji ko fa <laughs> doo ko def ni nga koy tànnalee suuf ndax ti muy pepp dong nga wuutal ko suuf soo xam ne boo ko ci jiyee mu nangu yàlla nee ne mën yu mi ci góor na seeti suuf su ñuy wax jigéen mu denc ko ca mën yu mi ci góor xam nga góor day perte ñaar ndoxam dërëmam moo tax sama jëkkër daaj te ñu yomb koo wax bis bu ne sa ndox dem bis bu ne dépense bi dem muy sa dërëm jigéen du tëli kenn mës koo dégg ah fu ñuy tëli ñooy jël xaalis bi ñooy jël ndox mi ah am da leen a neexul loolu lay dëgg di mhm. bés bu ne nga joxe sa ndox muy sa mën yi mhm. joxe dépense muy sa dërëm su yàggee ñu ne tëli na moo tax mag ñu wutaloon ko stratégie mhm. guddi juma guddi altine la ñuy jotee seen soxla bu weer wi soree ñu arrêté ko pour dàkk leeru suñu borom yooyu boo ko jàngulee Babacar mais nag nan nga koy méngale ci guddi gi am waxtu wo meuna a sa soxla parce que leer gi ci lay wàcc guddi aljuma nga koy def guddi leer la mooy alxames ci guddi guddi altine moy dimanche ci guddi guddi leer la xam nga xam nga muhammad ali salaatu wasalaam ban heure lañu jox aminatu abdallah ليل العروبة مودو يوخ دو سما وخ ليل العروبة حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم مسمع الفهم دام ووتي بو خامني تخ دوكو ديغ كوي ديغ كوي ديغ موي مسمع الفهم تخ امو تشا والا اي تخ مومو كوي ديغ كو مومو نان نعم. اه مسمع الفهم تو دافا دا امنا يو خامني بوبكر ليغ لي nga waxtane ko ci sen am ñu def commentaire contre la. Mhm. xam nga lu tax parce que jànguñu domaine boobu. dañ caa waroon a maandu bañ a commentaire. Sénégalais rek day commentaire surtout weeru koor wi ngay commentaire di wax lu bon ci nit ñu jël sa koor yëpp jox ko. soo woorul ñu jël say bàkkaar yi ki nga doon xas yëpp yal la ko commentaire da koo jar Iran du seetaan télé du déglu rajo du déglu télé man buur laa rek. dara du ma ko déglu sama nopp yi du dégg léegi léeg-léeg ma waxtaanee dara ñu ni Iran daa déglu rajo parce que moo xew ci réew mi déedéet damaa xam réew mi rek xam réew mi rek. wallaay xam réew mi rek ne déconné rek lañ man déconné rek ak xuloo xas nit gaaral nit wax ci nit koo tudd sëriñam wax ci lu baax mu saaga la te boo tuddee ndeyam du la saaga nga tudd baayam du la saaga mu lay saaga ci baayu jàmbur rek ngay jàmbur sëriñ si juruñu la. waaye yow corona mi yeena la yeewul moo tax gis nga mbon gi ci jigéen ñi ak ñun ñi ci góor ñi ca takkin yàlla soo utoon jigéen xam nga nag léegi Iran buy takk ndaw soo am forme lay takk ku waŋ benn ma bëgg ko xees ma jël benn ma bëgg ku ñuul ma jël waaw mais il faut mu am forme njool ca kaw moom itam di tiitaru bu guddee mu sol ay sëriñu bëtt ah woddoo ko jël cuuraay taalal ma jaar jaagar jaage sama kanam loolu yëf yi wuyu la rek waaw bàndi la rek doo dara mag ñi buñ daan sëy kenn du gis sa awra morom Ali ibn Abi Talib denc na Fatimatu bintu Rasul ba denc ko ci bàmmeelam keroog ba muy sukkuraan laf ko ne buma bul ya may sang ya may sang ndax ya mine gis sama yaram bul gis sama awra nak gis bis boku xole sama gannaaw bu yowmal qiyamé ma la yoko yow doo jéggi siraat mukk te la yow muné ko kon numay def muné ko muruma ñi ndox mi nga duggal sa loxo ci bi dara mais buma ñor ah. lu tax Ousmane tudul Ousmane de dembo dembe la bàyyi Alaaji Maalik Maodo ko ngénte waa changé tur wi dem ma xura ca Maodo ne ñoom boroomi xam-xam lañu lu tax mu ngénte ko dooma ko laaj maa la koy laajal tontu la ko walla Iran lu tax ñu ngénte ko wa ngénte waat ko may la Maodo nee na al yàlla nee na wala tënnaa bi zuubil alqaabi bi sa ismul fusuux baadal iman xaadim ñu di leen tuddee booy ceeb baa mu ñuq baa paate baa demba yàlla nee na noonu nit jullit kenn du ko wóowee turu bon da nga ko wóowee turu rafet looloo waral boo tuubee ñu changé sa tur mais boo tuuboon tudd Boubacar kenn du ko changé dañ koy bàyyi mu continuer maam Ousmane lu ko denculoo maam Fawad maa dem gaaya maa ngi njaay doos yal na ko yàlla jéggal ti yërëm bu baax a ngoo njaay doos ku amul morom ku bëgg sagu nit koy xam di ca ba rek di weyaale rek comme Birino Diatta Birino Diatta lim xam ci réew mi xam ko ci secret d'état ni mu bëree mais bañ koy suul dañ ko koo suulaale mosoo dégg Birino mu mel mosoo dégg mu wax safaan noonu lañ ko suulaaleeg secret d'état yi mu xam te mu gën a fort président yi foofu njaay doos ñu ànd ak ndóoyi ki fi ñëwoon sànq maa dem ba fañ koo mayee dem daa ba kër Thierno Malick Sow moom lañ tuddee Seydi Hadji Malick baayam da doon jàng benn téere bu mu dese woon di laajte ko ko man ñu ne ko Cerno Malick Sow ko man ti moo doon sëriñ ñoom maam faa wàdd wele ay xaadir lanu mhm. du nu tiijaan ay xaadir la du nu tiijaan muy mhm. tiijaan nag xaadir ak mur yëpp li am solo mooy jullit mhm. dama leen di laaj ndax ku bokkul ci tariixa jullit nga wala doo jullit jullit nga waxal ci kaw Oustaz dëggal jullit nga nga ah? weer na ndax ku bokk ci tariixa te bokkoo ci diine ndax jullit nga doo jullit nañ ko leeral nit ñi nag du noonu ma dem ba ci cin la mu doon togg cin la da caa togg ba mu fukk daa fukk ma di ko bëgg a yëkkati pour ñu foto ñu di jaay njàmbaar dama ko ne cas bougéwul ma ne ko yàlla ndànk ne ko teemaa toog nga jéem ñoo foto fekk dafa diis rek du dara dama doon tappale rek ma ne la ne da koy jël ma ne ko bàyyil noonu ba xam bàyyil noonu booba jeexal na téere yi ba dese benn téere moom bàyyi maam Maodo di maam Demba Maodo ko ngénte changé turam tuddee ko Ousmane muy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy mu dese benn téere bu ñuy wax lexmiraar mu mujj ci grammaire man bi ma koo jàng dama ko mémoriser aw ma woon téere bi ki ko doon jàng am téere bi Baye Malick di ñu ko jàngal dama ko capté ci sama bopp rek ku xam lépp aalimun fi kulli fànnin sëñ Mansour ko tudde lépp la xamoon maa daan tijji génne téere yi buñ paree may tëj dugal téere yi toog ci wetam di ko déglu jox na ma téere yu Maodo moom yu kenn imprimé wul boo bëggee dara dangay jege mag xamul tax mu takk yaay maam Maodo jàng ko fa yóbbu de jàng na. gis maam faawaat di wele ngeen baal ma caméraman suy dugg ci géej gi ci dex gi xam nga dex ga la daan fóot dem naa fa muy fóotee dem naa ba ca biir dex ga suy dugg du def nii xoolal su defee nii luy feeñ yeel yeel nii lay def da koy yëmbaxal xuus moom ci ndox mi lu muy bañ ku gis ay yeelam te te te dex ga sori na foofu mais rootaankat ya fay ni ak fóotaani gis yeeli maam faawaat demee la jamais jigéen ñi sol ay rob ak seen colu wuy seetal ndaw si lim sol dugal fa kenn maa la ko wax maam Ousmane lu ko yóbboon ca dex ga moom it fa la daan duyee ci ndox muy waajee fanaanoo guddi pour di ci jàpp mu xool maam maam faawaat demee la mu def la mu ne jigéen ci bañ ko gis yeelam kii ko takk da nga am doom ju baax te moom doxandéem la fa dafa ñëwoon di jàng si rek mu wax dem naa ba téye te na ko maa téere bi nii mu ngi ci téléphone maa ko bi bàyyi alaaj bi jàng si muy li xamera ca Thierno Malick maa ko téye dem naa ba ca aliwa ja Maodo dalee yëkkati ko jëm dalee maam alaaji dem naa ba fa mu juddoo dañ koo bale def ay barrière di ko leeñ dem naa ba ca kër gëñ mayee maam Ousmane maam faawaat di wel ñetti koo may sottiwul ca ñetteelu yoon wa ca kër ga ca la Cerno Malick Sow ñu may ko ko ci taalibe bi bu ñëwoon rek di jàngaan si taalib yi nga yax yax mi raana lii mooy lixmira téere bi lu gis ngeen ko maa dem ba gaay yi jëli ko fa leer na bàyyi Seydi Hadj Malick ñetteelu jataay ba la ñu d'accord nag ci may ko ko Thierno Malick ko def mu nekk fa ba soxna si wan na lor dama lay wax pour jigéen ju baax xam nga maam faa de lu muy def yéreem lay xotti ay séram di ko xotti di ko defal xale yi mbubb ak tubëy xam nga bu rixalata sitaay wa fi xam nga ko lu muy fii rihalata shitaa'i wa sayf su jamono tàngoor ñëwee mhm. mu jël yu oyof yónnee maam Cheikh Omar jox ko ma jox ko maam Alpha Wele ne ko joxal ma ko Cheikh Omar defar muuraake defar nàkk defar lu ne mhm. ne ko na ma ñaanal doom ju baax Cheikh Omarul Fuuti mhm. Taal ku ko daan yóbbu maam ma Yoro Wele moo ko daan yóbbu su sedd bi ñëwee comme jamono ji mu jël yëre sedd jël cuuraay jënd lu ne yónne ko Cheikh Omarul Fouti Tall ne ko dama ñaanal doom ju baax doom ju baax rek lay wax doom ju baax rek jigéen sëy bu ci wutul doom ju baax lu mu ci oto immeuble appartement xaalis dem bitim réew ceem yaa tuuti bët yow nga war a jur ku yilif loolu am de wallaay ndeysaan ko defee xaalis du nit wallaay ndeysaan caméra du nit ko defee wallaay ndeysaan yi ngeen sol nit a koy defar oto yi nit a ko defar mm. adduna bi yëpp nit a ko defar te yàlla jox nit xel moom ko defaree doo doo nit wallaay ndeysaan ku nit dem naa yooyu yëpp dem dem naa ba ca bàmmeelu maam faa waa ca tànkam ya la la ca tànkam ya la fa ne nekk xeer wa mu daan fóotee di ca toog bi mu faatoo dañoo xëy fekk xeer wi ci tànk yi wallahi wal quraan al hakim yaay alaaji Maalik yàlla am na lëf di te day def lëf di te lëf rek a ko ñor seetal loolu xeer wam daan toog di fóot ak di ca jàppe bi mu faatoo ba ñu suul ko xeer wa moo ñëw toxul boppam ñëw ca tànk yi jéem naa ko yëkkati mënuma ko tànk ya fa mu toll ca bàmmee la maa fa dem ba ma yi yi wax naa dama ko jàng ci téere yi jànguma ko ci téere maa ko jàng ci gis waaw seetal loolu loolu la daan defal xale yi Cheikh Omarul Fuuti Taal ñaanal ko Maodo jot na mbóoti tariixa Cheikh te juddoogul juddoogul laa la wax bi maam Ousmane di dellu yaa ma jigéen ju baax de. Mhm. jikko yi li ko indi. Mhm. xam nga ni di fóot dex. Mhm. di yor xotti yére. xam nga kii mën naa jur ku baax. man amila saalihan. wa man yàlla nee na ku baaxal sa bopp ku bonal sa bopp. ku baaxal. sa bopp. ma tënk ko ci beneen olof boo dégg. lu waay def. boppam boppam. lu waay def boppam bi maam car maam Ousmane di ñibbi la wax Thierno Malick Sow ne ko mhm. soxna si dee wan na lor waaye bu juddu jox naa la ko sama àllarba tuddee naa la ko muy àllarba ji xaadimu rasul àllarba la xaaji Malick àllarba la moo tax kenn mënta mel ni ñoom mhm. coow yi bëri nag mhm. man ganaaru kenn nenu ma ganaaru kenn ma nelut kenn man du ma coow di wax damay jàng di wax xam di wax sëriñ Touba ñu ngi ko tuddee Serigne bàmba sàll ca Saalum ah, moom la ko maam Mor Anta Sali tuddee ne ko sama àllarba ngo maam Ousmane tuddee Cheikh Al Hadj te juddoogul mm-hmm. ne ko bu juddoo di góor tuddee naa la ko Thierno Malick Sow ci biiru yaayam mm-hmm. alaaji maali ci biiru yaayam la papam faatu ci biiru yaayam la yaayam xam euh, xam turam turam a ko jiitu juddoom Seyd Seyduna Muhammad ci biiru yaayam ci la baayam faatu ci biiru yaayam la ñu wax yaayam ne bu juddoo nañ ko tuddee Ahmed bu mu la métti yàllaa def lu ko neex yéen ñii toog su ngeen sañoon du ngeen yor ay sit yéen fi ëpp alal ci monde bi am déet waaye li ngeen neexagum yàlla dangeen ngeen dooni lëf nag maa leen ko wax da dooni lëf maa leen ko wax bu ngeen guddee fan mu ne ko tuddee naa la ko mu juddu avant muy juddu Cheikh Omarul Fuuti jël na mbooti tarixa bi yépp jox ko maam Alpha ni ko ah, dafa mel ni wax nañ ma ne Thierno Malick Sow moo ko moom <laughs> yàlla gars yi ñoo man affaire moo tax sëñ Touba ni gars yi def nañ ko moytu jël sëñ Touba tëgg ci alaaji Maalik jël alaaji Maalik tëgg fee jël ke non demal ci masaalikul jinaan nga yër ko xaadima rasul bañ ko laajee moom ak gars yi wël yi daf ne leen eh ana ana waxum humu mm-hmm. sama bopp laa xam xaw ma leen bàyyi leen jàmbur ana ana waxum xumu loo yem foofu ngay wax loolu wax sa baay li ngay xamoo ci dara da ngay fen rek di tapale rek pour xaalis bi nga dégg ñu koy maye ñu may la yow gëmoo sax li ngay wax xaalis rek nga gëm ak oto buñ la ci jox gëmal yàlla am li am lépp mu jox ko mbuudi ne ko bu juddoo nga jox ko jox ko maam Alpha ti moo daan yóbbu yóbbante yi mi ko doon ñaanlu lañ ko jox doomam te juddoogul bi mu juddoo nag ba màgg la ko maam Alpha ne ko lii dee yaa ko moom mu ne ko fu ma ko jëlee mu ne ko bi nga juddoogul la lu ko Cheikh Omar jox mu ne ko lu ko sabab mu ne ko sa yaay ma daan yónni ci moom di la ñaan lu yow pour doom muy doom ju baax mbooti tariqa baa ngoog mu ne kon de sa sos tariqa mënatul nekk jamais jox nañ ma tariqa si jox ma mbóodi mënatuma sos tariqa Maodo maintenir ci tarixa cheikh da daan wax moom cheikh alxaaji Malick ne cheikh ay sama sëriñ mais maamam laa yaakaar oh oh oh seetal loolu cheikh ay sama sëriñ nag ci tarix waaye sama yaakaar nag rasulullahi la sallallahu alayhi loolu cheikh alxaaji Malick daan wax wax na lu ma neex xaaji Malick li nga bëri na ñuy wax xamuñ dara Cheikh Al Hadji Malick nañ ku koy kaasal xamoo dara Seydi Al Hadji Malick dafa xëy bind ci téere ne ku mu dégg seeti la defe ne dara la mu jóge fa seeti keneen defe ne dara la xaadim moom ku mu dem rek nekk daal kese nga kese kese mooy nit ku mu waxtaan pare ngeen ne ko mayoo ma dem ci duus ba waaj ti ñëw mu ne kuy waaj du waaja gis nga man kuy waaj du waaja moom la sama turandoo waxoon bam ne jant bii dee laa gëm mu ne ko du eh, eh, génn biddiw wi génn mu ne kii la mu ne du kii mu suux mu ne du moom weer wi ne dàng mu ne kii la weer wi suux mu ne du moom <clears throat> ñu ne ko kana mu ne ki koy dugal di ko génne kooku mooy suñu borom Maodo ne falama badaa lii annahu laysa mahrabun si waa baabikal xaami madatu yu dayiti li tax fire lii yaa rabbi min kulli zallati li ma doon wër yëpp yow laa doon seet ku ma dem xam ne du moom bam leer ma ba ma xam la ne yow yaa yow ma di la jéggulu ci ñi ma demoon di la fa seet dem ngi ma fa dem nga baal ma ko xaaraaniwu ma yow laa doon war nekke nekkoo fa yaa ngi nii jéggal ma ko nag lii mooy affaire nit day xool ki mu àndal bu dul waaja nga wàcc ko da lay tàddeel jox ma may lekk jox ma ma sol jox ma ma dëkk ti doo doo defal dara jaru ko kon sëñ bi kon sëy sëñ bi ak tayibaatu mhm. li tayibiina mhm. wa tayiboona li tayibaati alxabisaatu wala neexee lil xabisiina wal xabisuuna lil xabisaati yàlla ne ne wuyu bu góor wuyu bu jigéen ñooy sëy wëlli yu góor wëlli yu jigéen ñooy sëy ah sa doom bu dee ko am kaay nag ñu waxtaan oustaz bu ma nëbbu nag bu ma nëbbu waaw d'accord xamante nañ mhm. bu ma nëbbu de d'accord soo amoon xale bu ma nëbbu nag waaw d'accord incha allah incha allah yàllaa ngi la tiim de wallaay yàllaa ngi ñu tiim yow laa wax <laughs> waaw maa ngi lay dégg. soo amoon doom bu jigéen. Mhm. Didi Mali. di mhm. sa doom. Mhm. kii moo may monteel sama émission yi. dëgg la. muy Didi. may baayam. dama koy jaay di. waaw xaalis bëri. waaw amul kay jarul ngay ñëw. <laughs> waaw. man yi Boubacar di wax ne wuma ci de. <laughs> ndax xam naa ni amu fi. boo gisee jigéen ju baax fii senegal ma bëgg sa doom mhm. te aw ma xam nga man jaaykatu radi la mhm. ak galaasa man fi mu ne yoruma dara mhm. faqiree ma tamit man man galaas ak ndox ak koor gi du jar sax galaas moom dana jar ci koor gi waaye ndox ay radi booy soxlawuñ ko kon radi ji doxul ne ne non non galaas gi moo tane tane tane Macky nag maa ngi ko doon jaay ba léegi jënd. bu fi toogee ba wàcc ti jëndul du baax ci moom na jënd. Mm. ah président ah du day def ngir yàlla rek. day ñëw Tiwaawoon taare otoom ànd ak jabaram soxnaam bu ñuy ma jaay leen. keneen ji damay jaay rek di. ti seen carte yi ñuy voté buñ ko jaay ñun duñ ko jënd. am déet kon ñu ni suñ kerem yi waruñ ko jënd. ko lay jëndal danga koy jëndal nag. ay nit dañ ma oo conférence ci fan yi may leen dikkuma ñaar moom banaa ko sëriñ bi bu Boubacar mhm. soo feebaree kenn du la seetsi mhm. soo xewlee kenn du fa teew mhm. kon boo feebaree doo ma gis boo xewlee doo ma gis al jasaawul ihsaan ilal ihsaan ki nga xam ne boo xewlee woo ko mu ñëw teewal conférence la ba mu jeex mu dugg otoom ak coonoom ñibi su feebaree yor yëg méttitam euh, tëdd ak méttitam waaye waay goreel bu xewlee nga dem bu feebaree nga seeti ko mhm. su dee gàmm la fanaanal ba bët seen nga tàgg ko mhm. wan ko ne ko lang ma defaloon mu ngi nii hal jazaa'ul ihsaan illal ihsaan ma ne ko conférence uma maa lang xam nga de ñaata conférence laa def mhm. ñaar waaye yow déedéet laa lay wax damaa bañ teyri muusante xam nga lu tax ma def ko mm. ay xale lañ te dañoo nangoo daan seen doole muy comme yéen Sidi léegi leen ngeen ñëw fekk ma feebar du tee dama leen di defal parce que ay ndaw yu bëgg a liggéey ngeen. bu ko ñaaree amicalu jigéen ñi nekk ca Saly mairie bu ndaw la te maa ko daan defal at mu jot ñaari bii samedi la bii dimanche ma pare ci benn lay defaat bu fekkee suma borom d'accord na ci mooy bi mujj ci koor gi. Kaolack laa jëm ñetti conférence ñaari wóor na benn bi wóoragul ah bu ma feebaree Babacar doo ma seeti wallahi suma ma xewlee doo ci ñëw ci loo ne maa ci gën kon faale woo ma wallaahi ndeysaan léegi nag soo amoon doom aw ma de ma nopp ko ñuy ngoro noo ana xaadim xaadim mi jóge Europe yor ay millions. Mm-hmm. bëgg sa doom. dara yoroo ko yow Babacar. Mm-hmm. xaadima ngoog Iran ngoog. Mm-hmm. Iran faqiir. xaadim xani xani mooy ko oomal. ku mooy ko amul dara. ku doylewul. sa doom yow boo yow boo ma nobee xam nga gis nga yow boo ma nobee faalewu la. faa man mi amul nga bëgg nga naan kiiraan lañ nopp nag faalewu la xaadim mii lay nopp moo yor koppar waaw ah, bu ñu fa yeggee foo jëlee doom ju baax man ma defoon ni say jigéen ja ciy xalaat am doom ju baax bi ma yóbboo sama yaay maa ko waxoon naa leen ko bi ma seeti sëriñ Abdoulaye Al Amin moom lañ ma jox moo ma yar lu ma xam falaa ko xamee génn gu ma daara ja bi mu nelawee raw doom doy na ma wéttal du ma seeti benn sëriñ soxlawuma ko sëriñ Abdou rek al amin rek doo ma fekk teewoon ci benn saal jamais bu ma doon yëlwaani sax ci sëñ Abdoulaye Top mënuñ ma koy jox mu faatu ñu mu ne ci raw doom yàlla di ko wan may dem feneen ma ñëw fekk ko ci saal mi toog ma ni ko papa na nga def daf ma yaboon nag mu ne ma Ibrahima lu xew ma ne ko dama lay ziar si mu ne ma yow ak ziare net daf ma fontoo yow te damay bëgg a génn ma ne ko ah, dama am lu ma lay wax mu ne waa ah, la ma ne ko damay yóbbu sama yaay màkk mu ne ma yow mii ma ne ko waaw mu ne ma Ibrahima yow ma ne ko waaw mu ne ma loolooy màkk di sëy di sëy ba jur fa doom ju la yóbbu màkk màkk jooju wér sa jëkkër bu la yóbboo du du màkk ndax doomi jigéen ni yow moo la yóbbu màkk jëkkër doomu jigéen. mu ne ko waaye ki nga jur. yóbbu la màkk yaay sa yaay yóbbu boppam màkk loolooy màkk waaye jigéen ju yiw góor gu yiw doom ju yiw wallaahi yàlla ni góor gu yëwadi mm-hmm. jigéen ju yëwadi doom ju yëwadi mm-hmm. jigéen ñi ne sëyeetu ji nga danañ la téléphoné sax naan woy woy Iran moom day saboté rek waaye xam nga ni ñun dañuy sëy ngir doom ju wax dañuy fen maa la ko wax waxuñu dëgg parce que sëy bi amul benn góor ma laaj leen ñun góor ñi fi toog xaadim damay laaj de tontu leen ma ngir yàlla yow am nga soxna amagoo ko xaadim am nga ko sa diggante xaadimu rasul mii sa sëriñ laa lay laaj ndax ba nga koy bëgg di ko takk limaale woon nga doom ju baax waaye xalaatoo ko ja ah non c'est ça est-ce que moom boo demee ne ko Iran la ko laaj ne ko nee na ba nga may nopp ndax calculer woon nga ci doom mu ne ma tontu la danaa ah, non waaw sëy boo loo calculer wul euh, ci biir sëy bi noo ko ciy jure. wallaahi mënul nekk. inna ma laa maalu. be ni yaat. wa inna maa li kulli imrin. maa nawaa yonent bi ne li nga ci jublu nga ci am yow njoolaay beeg wangeeg xees geeg rafet gi moo la ci doon rey nga dugg ci. amul benn góor buy takk jabar xalaat ca doom ju baax amul jigéen juy sëy xalaat ca doom ju baax jamais. ñun nangu nañu yéen ñii seetaan bu ngeen nangoo yéen a xam su ngeen nanguwul yéen a xam yàlla xam na sëy kay da nga naan mën daal ndaw si et pourtant yow mi ma laaj Babacar. Mhm. fas yi bokkuñu. wallaay ndeysaan. course yi. Mhm. amul mbayaan. Mhm. am am déet. am amul fuutanke. naaru góor. est-ce que ñoo bokk fay. déedéet bokkuñu ko de. demal ci xari. amul laadum. cher <laughs> na de. doom ji ci biir bi. xaalis bari lañ koy jaay waaye xaraam na daganul ëmb kenn du ko jaay mango ju ñoragul kenn du ko jaay lu xaayagul mooy xarar mhm, xarar mhm. xar mi ëmb nga jaay doom ji daganul jaay mën ni yu xar daganul kay tëbul ma sama xar ma fay la daganul boo demee laadum yaa nga fa man gis naa laadum bu jur doom du ko jur muy dox di di këlëng waa ji fay ci cinq cent mille ti sa doom bu jigéen ki ko takk fay joxewu ci cinquante mille trente mille la jox naan defal ma farata rek ba jamono baax te bu doon xar waa kenn du ko nangu nga def ci xar cinq cent mille def ci jigéen cinquante mille ñu génn sa kër xar muy jar cinq cent mille génn sa doom bu jigéen jarul cinquante mille nga jël sa xar dugal ci uddu ba ne laadum la sang collier fuddal ku bëgg doom bu baax ñëw ci yow mu tëbul la ndax mu jur doom bu baax yow ngay takk jigéen utoo ca doom bu baax yow xara la gën ah ko gën fuuf raas baax na waaye ci nit la rawati raas baax na ci nit la rawati mm-hmm. xoola jigéen bu lay ñaan loo man ñi may ñaan mënumaa ñaan la dañuy ñëw wan gannaaw seen doom bi ma nekkee ci tànt bi ko ñëw day indi doon ñaanalal ma ma ñaanal xale bi ti moom du ñaan jigéen moom na doom jee baax rek na doom ji mucc rek waaw jur yépp am raas ba ci ganaar gara ganaaru Hollande am na waaw ci ganaar nag yi sax am na raas élevage am na gëbrë am na ndaama fas yi mhm. bëy yi sax da ko am mhm. ganaaru baromaan ak ak kanaara. Mhm. baromaan ñoom. ñoom grand baromaan xam nga leen. ay gars lañu ñu ñëpp ku ne am nga raas te gis nga booy xool laadu doxinu raas lay doxe naaru góor doxinu naaru góor lay doxe raas bu ne day doxee raas doxinam man bi ma nekkee Saalum su ma bàyyi yónnoo ni jënd nagu gëb penku ku njool yu ponkal yi pour mu tëb a géttam gi xoolal wëri raas ba fuuta ci nag waxal sa doom wëri raas jigéen sàngam de yaayam saykal la jigéen sàngam de yaayam jàmbaar la jigéen sàngam de yaayam ku baaxal nga wax sa doom mu dem ci doomi kooku mhm. waaye papa ga papa na nga def sawa ki suma gekk moom lay génnal quoi euh, mu ngi tudd euh, nu mu tudd euh, timlo quoi waaw sama ñoo bokk université di jàng dañuy génn daal père quoi mu bëggoon nga dem seeti papa ñu may ma ko parce que nopp na ma te ñetti fan yim ñëw sa kër moo gel bee ànd ñëw fi te ñooy bokk ni luy ndeyam ti maye maye guñ ko ko xam nga ni ndaw si amul kilifaay sa doom ji gën a ñàkk kilifa ñëpp ti gën a yab ñëpp di fanaan ak jongama ti yow wóor na leen a takku ko ngay yi taxawul kon nga jàpp ne mhm. nit ñi dañoo war a soppi doxalin mhm. nañ ko soppi fan ki xawma taabale ko mi ne nisaa takk leen seen genre mhm. ni nga mel takkal ku ni mel ndax ngeen jur ku ni mel am déet wallaay ndeysaan takal mi nga mel Babacar mhm. takal ku ni mel mhm. ndax nga jur sa bopp wallaay ndeysaan takkoo ko ku mel eh, eh, ni nga mel mhm. nooy juree no ku mel ni wallahi wallaay man dana ay ca jërëjëf kon ndogul jambaari ñu ngi lay gërëm di la sante ci intervention ba am solo bi ak li nga woote ci jikko yi pour ñu baaxalaat ko jërë ngeen jëf mbokk yi ba benen émission inshallah ci ndogul jambaari ci seen réseau DTN. aax waa ngi nii egsi weeru julleeg woor sàkk sarax teru weeru xar baax waa ngi nii egsi na weeru julleek woor sàkk sarax terul naa weeru julleek woor sàkk sarax terul naa weer wi terul naa sunu weer terul naa baalu war na baalu naa baalu leen baalu naa baalu jot na baalu naa baal ma àq baalu naa naa leen baalu naa